Euh, non man de euh, xam nga bi ma lay interpeller lan yan acte la ñu posé te mu mun a ressembler à une rupture systémique euh, am na yoo ma yoo ma gënal mais est-ce que am na ñaari mbir yoo xam ne mënoon na gën a conforter les gens qu'on est face à une rupture systémique benn bi muy le président euh, le, le premier ministre Ousmane Sonko euh, dans ses déclarations antérieures Euh, dafa ne woon président de la dafa war a génn conseil supérieur de la magistrature amul dara lu mu fay def ñu bari ci ay hommes politiques sénégalais yàgg nañu wax ne président sa présence au niveau du conseil supérieur de la magistrature bokk na ci li euh, lié les mains de la de la de la de la justice bi ñuy def assises assises justice yi sur la modernisation de la justice euh, le débat s'est posé il euh, y a il y a il y a eu deux camps aujourd'hui cet après-midi quand le président de la République recevait le rapport euh, sur les assises de la justice euh, daf ñu servir comme Macky Sall à l'époque un ni oui ni non nee na euh, forcé wul pour ne nekk ci ak ñàkk cee nekk euh, amu ci choix amu ci benn choix mais ñi nga xam ne dañoo ne na euh, président de la République des ci conseil supérieur de la magistrature war nañu taxaw jàngat. Euh, position ñooñu mais tout ça pour dire quoi. war nañu jàngat taxaw position ñooñu euh, donc nga yaakaar ne conformément à leur promesse bu président décidé woon génn conseil supérieur de la magistrature est-ce que loolu tamit naru woon nekk un acte de rupture fondamentale c'est du jamais vu. non deuxième deuxième acte de rupture fondamentale. mooy promesse ba ñu defoon concernant euh, les nominations euh, ne dañu koy def euh, par par par par appel d'offre xalaatoo ne ñaar yi buñ ci conformé wu woon doyoon na pour décréter cette rupture déjà déjà madame moo tax ma foog ma foog ne dañu am problème Sénégal quand déjà am na beneen bu ma doon wax te pare wu ma mooy affaire parti politique on a toujours <laughs> demande président de quitter le parti mhm. politique ba CNRI yi ñëpp assise nationale ñëpp ñoom ñëpp ñu lank le président il est venu il a quitté c'est un acte de rupture. le président de la coalition Diomaye président. oh attendez bon alors. il est président de. mooy président coalition Diomaye président. yow yow moom. démissionné na de Pastef. mais c'est le président de la coalition Diomaye président. non non non je suis même pas sûr que. ah si non non non il a ah, participé à une réunion les gens ont tourné ça non non non c'est pas ça. Ah. il a participé à une réunion les gens ont ku mun parti tu ne peux pas être membre de la coalition. donc ça c'est clair et ce n'est pas euh, alors maintenant yow boo defee politique nga ne le de la République. doit sortir du conseil supérieur de la magistrature comme man li ma wax ñun loolu la ñu bind suñu livre le ministre des de la justice peut rester mais le président peut sortir c'est mon point de vue moi en tant que d'abord intellectuel ki a fait l'analyse et moom parti l'a adopté mais est-ce que tu penses que da nga yeewu rek ne voilà on change il une constitution yow nga ne da ngay def démarche consensuelle yow tu as un projet ci appelles tout le monde tu dis discussion de ça ñu discuter mu am ay points de vue divergents mais kan mooy décider c'est le peuple à travers l'Assemblée nationale ils vont voter les voix vont se lever lu ñu décider foofu lan nga ci mën a yow mu ngi mooy li ñu wax ci élection yi kon na ngeen ne rek volonté benn nit la nga yeewu ne man lii mooy sama point de vue dama koy imposer loolu bu ñu ko defoon ngeen ne amul démocratie c'est comme ça que ça se passe c'est pas automatique. mais le président ci waxam c'est pas automatique. le président ci ko buggu ci waxam. Mhm. ci waxam bien qu'il nous serve un ni oui ni non ci waxam dafa mel ni euh, relativiser na. position antérieure loolu euh, boo demee boo ko jotee. nga non xaaral xaaral rek xaaral dafa mel ni relativiser na non dafa mel ni relativiser na ses position antérieures. et d'ailleurs c'est le président et d'ailleurs ce qui est bizarre mooy sénégalais yi ko doon yuuxu quand ils ont eu l'occasion de concrétiser ça. ñëpp ne attention danger. le président de la République ne doit pas sortir xam nga mën nga développer yow même yow mun nga développer benn point de vue étant dans l'opposition nga dem sur place. Hmm. nga gis ne point de vue bi ngay développer mënul am. c'est la réalité du pouvoir. c'est pas une question de réalité du pouvoir c'est un problème de niveau. d'information. on peut se renier non du question renier. le reniement par exemple devient non, légitime. non non non je n'ai pas parlé de tu m'as jamais vu me renier et tu ne pas. je pas le genre je ne défends pas de reniement je te dis da nga adopter benn démarche tu as ton point de vue que tu peux garder jusqu'au bout même tes députés à l'Assemblée nationale peuvent voter pour que le président sorte et que tu sois minorisé c'est comme ça que ça se passe yéen état du affaire affaire sentiment. le président de la république bokkul ak le parti le parti il a un programme politique il dit lii laa bëgg ñu ñëw institution d'accord démarche président bi ne lii dama ciy laaj avis ñëpp ñëpp toog waxtaanee ko même bu waa assise nationale bi. c'est grave ce que vous dites. ce que je dis c'est la réalité. oui mais c'est grave ce que vous dites. déglul. ça veut dire que boo nekkee dans l'opposition mën nga jël euh, dëbb daaxee benn programme populiste proposer ko nit ñi. non non non et une fois au pouvoir tu peux allègrement changer. je veux te dire que ton point de vue peut être minorisé par l'Assemblée nationale. c'est ça que je dis si c'est une loi qui doit être votée si c'est maintenant un un décret que tu dois prendre si tu ne prends pas le décret yow lañ koy imputer yow yaa war a décider tu as le pouvoir de décider. nga waxoon lii ci campagne bi nga am droit def ko defoo ko bu boobaa. yow lañ eh, on est d'accord ah. voilà.